RTS 1 triangle sud Dakar waxtu wi jot na mbokk yi bisimila ci xibaar yi ci wolof xeexum coronavirus bi fan la ci Sénégal toll juróom fukki nit ak benn ñoom ñoo am feebar boobu naka tey ji ci àllarba ji ñeen fukk yi ay cas contact la fukki ak benn jàpp nañu ne ay cas communautaire la nak nonu dañu wax itam ci li nga xamni modi wadjal li nga xamni mo jëm ci wàllug euh, nawet bi ndax nak onance mi ngi ci liggéey bi ci bir dakaru njay ñu ngi fexé dal euh, wadjal nawet bi ba fenn du am bënd ci bir dakaru njay opération pré hivernage nak nonu mom la ko onance tudde ci bir xexum euh, li nga xamni ni modi Covid 19 ba légui dañu dem ca Kermel ak Sandi Ñeeri seeti nag jaaykatu fruits yi nañ la ñu tooge jaaykatu pomme banana orange mandarine wax nañu daal ne clients yi bareegul ndax Covid 19 bi reportage la bu Fatoumata Savané di leen nuyu di am mbégte ànd ak yéen ci seen télévision nationale di am mbégte it di xam ne yéen ñu topp ci réew mi Sénégal topp ñu fépp ci àddina bi mu di RTS 1 maa leen koy wax euh, léegi fan la Sénégal toll ci xeexum coronavirus ni ñu koy defee bés bu ne bu fukki waxtu jotee ci seen télévision nationale noonu lañ ko amalee tey ji itam ñoom waa ministère de la santé action sociale di xam ne ni ginnaaw nag ay test ay saytu yu ñu amal juróom fukki nit ak benn am nañu feebar bi ci àllarba ji ci alxames ji ngeen baal ma yemoo ak fanweeri fan ci weeru ko avril naka noonu ñeen fukki nit itam am nañu ay cas yoo xam ne dañ leen ko wàll fukk ak benn nekk nañ ñoo xam ne xamuñu kan moo leen ko wàll te xamuñu itam ñoom kan lañ ko fas yéenee wàll feebar bi nag ñu ko gis te jii diggante mbaaw Maris Touba ak euh, Mbacké jàpp nañu itam ne am na ñaari cas yoo xam ne garaaw na lool ba jéggi dayo moom docteur Marie xemes Ngom Ndiaye directrice de la santé Moko xamlé ci micro waaye surtout François Sek. ci bésu tey bi di alhamas di fanweeri fan ci avril 2020 ministère de la santé et l'action sociale jot na résultat yi ci examen virologique yi ci jouni ak téeméer ak juróom benn fukk ak benn ci test yi nga xamante ne réalisé nañ ko juróom fukk ak benn dellu nañu am doomu jàngoro ji yooyu nag ñu ngi tëddee nii ñeen fukk moom lañuy wax contact yi nga xamante ne suñu bëri bu liggéeykaay yi ñoo leen di saytu fukk ak benn moom lañuy wax transmission communautaire ñu ngi leen di gis ci diwaan yi benn ca Mbao benn ca Maris juróom-ñett ca Touba Mbàkke benn ci ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital ñu leen di faj fukk ak juróom-ñeent biñ leen saytoo gisatuñu doomu jàngoro ji ci ñoom wër nañu ñu ngay jógee ci bëju forikaay yi ñuy wax dalal jàmm juróom-ñaar wër nañ fa Touba juróom Sigicoor ñett Fann trois ñett Diamniadio benn ñaari cas ñu ngi ba tey suñu service réanimation yi ca hôpital principal ak ci hôpital fan ñi nga xam ne ñoo fa tëdd des fa seen wér-gi-yaram mu ngi ànd ak tan ci bésu tey bii ba mbas mi ñuy wax Covid 19 duggee ci suñu réew ba léegi am nañu juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett yoo xam ne dañu ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent wër nañu juróom-ñeent génn nañu àddina benn delloo nañ ko ci dëkk ba mu jóge woon ñu dese tey ci ñu ñuy faj juróom téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ministère de la santé et l'action sociale faire ngi dooleeti Nous askan wi ñu gën a topp yi nga xamante ne ko kenn du am doomu Nous duñu ko de ñu naan Covid 19 ba si réew Sénégal. mi ngoog ci xeexum coronavirus boobule xam ngeen ca Kaolack juróom-ñaar fukki nit ak ñaar jot nañ leen euh, topp ngir seet seen wér-gi-yaram ginnaaw bi nga xamee ni feebar ba mi ngi dugg ca euh, foofee di Kaolack jaaree ca euh, Nioro ndax nag kaa bu njëkk foofu la jaara ca Nioro doo ko dugg ca Kaolack kilifa yi nag jël nañu seen i matukaay ngir nag mbir ma yem foofu foofule Claire Diop Nyoro, di benn département ci région bu Kaolack filé nak ñu nemmeeku fi ka avéré bu njëkk coronavirus ci région bi ki ko am nekk benn ndaw bu am ñaar fukki at ak juróom dëkk ci commune bi di Daaru Salam mom nak Touba la jógee yépp ndamar def ci légume ba mu fess di ñëw filé ci département bu Nioro mu jaar ci yoonu suuf bi ba tax tak der yi gisuñu ko li ni mel nekk li nga xamanteni préfet bu département bi rafetlu lu ko. mu def lolu le 22 si la sama commencé jaayam. si même bés ba feebar bi am nu mu ko dikkee kenn xamul woon na loolu si boppam yaayam digal ko pour que mu dem xooli wérgu yaram si bërëbu fu ñuy fajee nit ñi muy poste de santé bi. bu mu fa demee ICP bi xool ko xam ne am na ay bu ñuy wax maladie Covid 19. bi mu yegsee Nioro nag jaaykat bi feebar ba tax mu dem ci poste de santé bu daaxu Salaam foofee ñu nemmeeku ne feebar bi la am test yi ñëw positif fi mu toll nag ñëpp ñi nga xamante ni jot na ñoo lëkkaloo ak moom téye nañ leen ber leen. képp ki xam ne jotoon na moom saafanteex moom wala mu jëflanteew jëndax jaay wala ngeen bokkoon jataay di naan ataay wala leneen ñooñu ñëpp dañ leen jël teg ko si loxo gouverneur bi nga xam ne mooy jiite comité régional de gestion des épidémies

waxtu bi jot ñu taxaw tem xeex law febar bi di coronavirus ba tax ñu ngay indi ndimbal ki di directeur général bu APROSI génnee ay copar yu tollu ci ñaar fukki millions ak ñett tek ko ci table ji jënd ci ay kit sanitaire waye itam ay kit alimentaire lepp rek ngir taxawu askan bi. liñ indi nak dañ dafa am diversité dafa bari na ay articles yo xamne pour protéger famille la indi nañ lo xamne commune ñoro famille yëpp yëpp yëpp yëpp dinañ am fu ñu raxasoo famille bu nekk ci ak groupe yi hôpitaux yeeg yooyu yëpp aussi dinañ fa def loo foo xam ne mën nañ fa raxasoo indi nañ eau javel bu doy indi nañ savon liquide bu doy indi nañ madaar yëpp loo xam ne lu doy na mais indi nañ aussi ñi nga li nga xam ne mooy thermoflash yi seet nit ñi indi nañ ko ba nga xam ne indi nañ ci ñaar fukk. keroog ba ñu nee feebar bi taxaw na rek dañoo defoon élan de solidarité te Momar lam te joxe woon moo ci ëppoon lu mu joxe woon. tey dellu siwaat na wane cofeelam ci population département du Nioro. njaboot bu nekk nag eh, di nga am raxsukaay loxo waaye itam ay lekk yu ci mel ni ceeb diwlin suukar meew tàndarma ak i saabu personnel sanitaire bi itam fàttewuñ leen am na matériel de protection bi nga xamante ni indi nañ ko ñu bokk ci ay masque ay thermoflash lépp rek ñu mën a taxaw temm xeex feebar bi di coronavirus. xeex euh, feebar bi Claire euh, Diop euh, ñi nga xam ne ñoo di artistes yi xam ngeen ni ñoom it ñi ngi koy xeex ñoom artistes yi bare na ñi nga xamee ni nag am nañ ci ay jafe-jafe ndax nag mënatuñoo tëgg benn yoon mënatuñoo amal ay tournée ñenn ñi sax ñi ngi koy yëg bu baax a baax ci wàllug ñi nga xam ne ñoo leen di jàppale ci wàllug liggéey bi loolu tax moo tax ministre bi yor lépp lu jëm ci wàllu aada ak cosaan dem seeti ay artistes yu mel ni yumeni Ndour yu mel ni Aïda yu mel ni Baba mal, ngir laaj leen nag naka la ñu toogee Fatou Diouf jëwriñ bi yor wàllum caada Abdoulaye Diop seeti na Youssou ay tànkam nemmeeku ko waaye tamit defal ko ci jamonoy mbas bi nga xamante ne lépp li nga xamante ne mooy liggéeyam dafa tàggatémbe li ko waral gën a doon couvre-feu bi ak confinement bi maanaam nit ñi dañu war a toogandi seen kër ba crise bi jàll li ne mel nag jur na ay jafe-jafe yu métti ci wàllum liggéey bi. le monde euh, des arts mooy maanaam culture. Nous nee culture nag dafa yaatu sonn nañu fi mu nañu euh, événementiel spectacle ak culture dañ koy préparer ay weeri weer booy préparer weeri weer dem ba mu jékki-jékki rek ñu ne la mënatul am artistes yi ngeen personnes derrière bu nu des musiciens yi xëy na dinañuy wax turu chanteur bi musiciens ak ñi nga ñoo nekk ci ginnaaw les techniciens ñu jar a jàpp gannaaw ba mu joggé ci Youssou Ndour nak dem na séti yenen artistes yu mag yu Sénégal ko ci melni Aïda Samb Ismaël Lo ak Thion Sek way bi ben la artistes yi ñu ngi dund lu jafé ci jamonoy coronavirus bi. bu amé souci wu gis na ñun le monde artistique depuis presque belle lurette ñu ngi ne tek yëngu wuñu

te dañu am ay yor suñu yor suñu njaboot ah dañu yor su njaboot war a dundal suñu njaboot tey yàlla xëy si bu ne affaire bi ne këpp ko teg ci duñ ko teg ci kaw kenn nag ah dañuy ànd ak suñu ngor rek waaw ku nekk ah, état bu nekk yaa ngi jéem a góorgóorlu en tout cas pour indi euh, seen ndimbal si population bi jafe ñu xayma ci walum koppar li nga xamantene dinañ ko ñàkk ci wër yi di ñëw wayé nguurum Sénégal nar na jël ay matuwaay ngir jappalé artistes yi ci jamonoy mbas mi waaye tamit bu weesoo. Euh, il était important aussi si ñun acteurs yépp malheureusement mënu ñu visiter ñëpp mais ñu def ay échantillonnage bo xamni mënu mun leen xool ñu déglu leen parce que écoute bobu moo ñu fi indi lu ma indi tam moy ma gërëm leen ah, au nom du chef de l'État et du gouvernement. ndax ñëpp gis nañu ne artistes yëpp ku nekk si loo nekk jàpp nañu dimbali gouvernement bi si relayer information bi relayer consignes yi loo xam ne ñoo xam ne loolu lañu am pour moyen de protection. ba fi ñu toll nii amul benn koppar boo xam ne jagleel nañ ko wàllum caada waaye nag jox nañ leen ay questionnaire yoo xam ne daañ ci wax ñaata la ñu ñàkk su ko defee nguur gi mën a xam ñaata la leen di jàppale ngir ñu mën a dund dundin gu rafet. Fatou Diouf euh, di ñu xamal ne senegal nag euh, am na ndam ci wàllu ko cosaan ak euh, aada ndax film bi nga xam ni moom la ñuy wooyee Nafi réalisateur bi di Mamadou Dia am ndam ndamu prix meilleur long métrage fiction ngeen gis ko noonu film la boo xam ne nag ginnaaw ndam li mu am Alsaan si itam am ci ndam ndax moom mooy acteur principal bi ci biir film boobule prix bi nag fi précis critique international festival Luxor ci Égypte moom lañ ko jox baamum na fi nag euh, day wax ci diggante ñaari mag ak rakk yoo xam ne ci biir njaboot gi kenn ki nag euh, mi ngi ci wàllu aada ak cosaan gëm li mu gëm keneen ki nag ma nga ca wàllu diine boo xam ne da koy mbubboo di def naka su dul euh, noonu boobule film nag nga xam ni Mamadou Dia moo di Bamum Nafi moom amdam am ndam ci turu Sénégal ci ndam loolu itam Alioune si moom it mi ngi ci wala Alassane Sy Alassane Sy mudi acteur principal bi ñu rek di ndokkale itam sunu artiste wala bokk sunu mbokk yooyu nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllug cinéma wàllu tourisme xam ngeen moom it sonn na lool ginnaaw covid 19 bi mu duggee sénégal bari na ci ay hôtel nañu am sax liggéeyatuñu mel ni nag ñu ngi nokkiwaat bu baax a baax ndax koppar yi ma ngay feeñ fële ca Tambacounda ginnaaw waxtaan bu ñu ak jëwriñ jor lépp lu jëm ci wàllu tourisme jàpp nañ daal ñoom acteurs yi ni léegi daal mën nañu nag daal am mbégte jeng di secteur touristique nak yek bu baax li nga xamante ni Covid 19 ci diwaanu Tambacounda lépp lu nga xam hotel hôtel la ak campement dañoo tëj tàpp. ñun kat bi bi rek. Ah, avion yi taxaw oto yi taxaw yoon amatul ñun ci lañ gëj a gis gan ndax ñun suñu liggéey mooy ganale donc suñu gisul gan ñun nan la ñuy def kon ñun suñu liggéey dafa jékki-jékki taxaw mbir mi metti lool nag metti si ñun ñi leen ñiy liggéeyloo mais mais mais metti aussi si ñi ñuy liggéeyloo ndax ñi nga xam ne ñoo see siy liggéey suñu suñu gisul xaalis lan lañ leen di jox situation bi nag di lu métti ci ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu secteur touristique jàkkaarloo nañu ak ki nga xam ni mooy ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu tourisme ci ab vidéo conférence. te ñu gis ne ne itam vraiment président saa su waxee tudd ñu lool rek dal na suñu xel kon ñun tamit. il faut ñu dugal ci suñu loxo te foog naa ci loolu la ñu ministre woo ginnaaw bi président waxee ñooñu tamit déggal nañ ko te nangu nañ ko incha allah dinañ ko doxalee noonu waaye li ñu ministre wax dal na suñu xel parce que nee na bor yooyu su ngeen ko jëlee di ngeen toog ñaari at balaa ngeen di tàmbalee fay mu ne waaye itam di ngeen ko fay si juróom-ñetti at wala si juróom benn at loolu tamit nekk na lu dal xel nek na lo xam ne ne tamit ñun d'accord nañ ci ak mom waye parce que lepp lo gis itam euh jappalante bi so bokké ci rew il faut nga duggal ci sa loxo. ngir mëna am ci copar yi nga xam mom lay état jappalé ñi nga xam ne ñoo yëngu ci walu tourisme nak tek nañu ab plateforme d'information et d'inscription bu nga xamante ni rek képp ku ci bëgg bok fofu nga wara déposer sa demande. euh, 15 milliards lañu dégager amna am benn fonds 15 milliards waye fonds bi amna no xam buñ ko ni liggéeyee mën nañu dem ba am 46 milliards. waaw ndax dafa am loo xam ne dañuy mooy entreprise yu gën a ndaw yi artisan yeeg yooyu déjà am na benn fonds boo xam ne cinq milliards lay nekk ministère bi dafay teg ñaari milliards waa DER teg ñetti milliards donc mu am cinq milliards bon am na beneen boo xam ne six milliards la boobu itam pour financer résilience fonds de résilience la ba léegi am na beneen partie boo xam ne nag moo sept milliards yi des donc ci ci li ñu wax léegi yooyu dañ koy def genre garantie ba nga xam ne nit ñi dinañ ci mën a bénéficier léegi nag bu ñu foofu nit ñi mën nañu dem seen prêt mën na dem ba au delà de de ces sept milliards là donc mën na dem ba trente cinq milliards. état du Sénégal nag fas yéene na jàppale ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu tourisme génnee na ci lu toll ci fukk ak juróomi milliards teg ko ci table bi ngir jàppale leen waaye fas yéene na génnee beneen budget ngir képp ku nga xamante ni rek yaa ngi ci gàllankoor ci wàllu tourisme bi mu jàppale la.

laata nag nawet bi jot lépp loo xam ne salte la dañ ko war a jëlee ci égu yi opération curage yi nag ñoo ngi ko tàmbali le 14 avril ñi koy amal nag ci réseau pluvial bi nga xam ne ONAS moo ko se moo koy saytu. ñu ngi sant yàlla saa yu tawatee ñëpp ay mën a génn taxaw ci kaw mbedd mi ndax dañ daan taw ñëpp génn ak seen i bagage mais génnatuñu fii nu taxaw jumaa la gis nga ndox mee ko lekkoon mais léegi nu ngi koy defaraat ndax amatul ndox et li ñu doon ñaan nag mooy ñuy préniser ndax gars yi dañ daan defar rek dem mais ONAS mi ngi préniser de. parce que nawet bi ñëwagul mais ñëw nañu taxawuñu te gis nañu li nga xamante ne moo nekk lu ñu génne ci caniveau yi euh, di leen gën a sensibiliser sama waa quartier pour nga xamante ne lii dootu amati. nu ñu koy defee ca dakaar noonu lañ ko nar a defee ca gox yi ñu nar ko tàmbali nag le 15 mai ñu nar a defar xoolaat ay canaux yu ouvert ay kano yu tëj naka noonu station de pompage. bu weesoo nag dindi salte gi nekk ci ëggu yi ak ci kanu yi ONAS ne nawetu ren gi moom dafa jël matukaay yu am solo. liggéey bi dañ koy door avant mais aussi bu taw bi ñëwee am na beneen liggéey bu ñuy defaat parce que am na bu taw ba pare xam nga am na suuf seeg salte gi yëpp yenn saa yi day pousse day ànd ak ndox mi ñëw dugg ci réseau bi loolu aussi bu taw ba pare am na aussi yenn équipe yu jaar maintenant pour euh, pour dindi ko pour que bu tawaatee encore ndox mi mën a jàll normalement am na point yoo xam nag yu ñuy wax ay point noir Il y dañ fa am personnel 24 heures sur 24 jël bo RTS euh, euh, au niveau euh, BHS sécurité sociale rond N1 24 parcelle partout On am nañ fa ay points yo ay personnel bi 24 heures sur 24. gi agent yi di daj ci curage bi. ONAS a baax ba bañ di boucher aiguille ak naka noonu muy ñaax maire yi gox yi ñi gën a xeex li nga xam ne mooy suuf si nga xam ne dafay fàtt égout yi ba tere ndoxu taw bi di dem. Hamidou Diop ñu dem euh, rue Sandiniéry ak marché Kermel foofu nag xam ngeen suñ ko tuddee rek xel dem ci wàllu lu mel ni fruits yi di ay pomme ak orange ak i banana foofee nag. doxantu fa jamono yi neexul ndax Covid 19 bi bare la ay jaaykat yoo xam ne ñu ngi xaarandi ko clients yi waaye dafa mel ni laal daal ñu loolu rawatina itam ci weeru ko koor gi dañ ci ànd ak Fatoumata Savané reportage la bu saaxalu ya marché Kermel bala nga fay duggu di nga raxas say loxo lii lañu fi tëral lu bees marché bi nag ràññee nañu ko ci ay légumes yu am qualité ci weeru koor bi nag ñu bari dinañu fi ñëw ngir def seeni ndugg. waaye ci jamono jàngoro coronavirus bi lu bari wàññeeku na fi. restez chez vous ñëpp a ngi toog seen i kër gisoo kenn kenn duggul kenn génnul parce que dañuy xëy 8 dañuy wàcc deux heures pour tëj marché yi. ñun hôtel yeeg restaurant yi ak yooyu ñoon lañuy jaay te ñooñu yooyu yëpp tëj nañu léegi nag client yi rek ñooy ñëw benn benn dugg si fii mu nekk moom ak gisatuñu kenn par benn benn client yi rek lañuy gis nii. client yi nag duñu leen gis lu bari te it am na ay ndugg yoo xam ni dafi faral di manqué. marché Kermel bu ma taxaw nii di ndugg euh, na mu doon mel da nga daan ñëw fekk fi ay kilifa ay ñëpp suba teel ñu gaari seen oto yow doo am sa place pour wax ak client bi di am ay jën yu rafet ndugg yu rafet tey jii tey table bi xamoo sa yéen jën ngay gis doo gis ndugu yu rafet radi bu may wër gisuma ko confirmé sa amu fi. ba ñu demee fële ca rue Sandiniéry foofu nag fekk nañu fa ay camion yuy wàccee ay keesi fruits. ndaw si nag dafa ñëw ngir rek mën a jënd ay fruits ngir mën koo def ay pañe ramadan. waaw damay am habitude di ñëw fii jënd fruits surtout maa ci mois de ramadan bi parce que damay comme am ay commande panier ndogu. tiituma li tax tiituma mooy yàlla moom moo yor ñëpp ak nga jëlaale say précaution mooy maanaam booy génn nga raxasu waset del def sa gel. boo ñëwee nga tok benn place. ñu bëri nag amuñu pas-pas boobule ndax tali bi nag dañ koo ràññee ngir bari fruit waaye nak jamono coronavirus bi ñu nekk client yi manqué nañu bu baax nga gis ne jaaykat yi sax dañoo jaaxle. journée journée journée boo doon jaay ñaar kees léegi bu léegi bu demee ba ngay jaay xaaju kees xam nga comme genre yooyu la quoi. Euh, ralentissement waaye du ñun kese donc sant yàlla parce que avant na affluence bu am doole waaye lii bu amee aussi mu am ralentissement dañuy dolli di rek. jàngoro coronavirus bi gàllankoor bu baax ni nga xam ni rek noonu la koor gi di demee lu metti ci jaaykat yi fruits ak it jaaykatu légumes yi ñoom nag lu ñu wax rek mooy jël seen yaakaar rek teg ko ci ki nga xam ni mooy buur bi yàlla. balaa yàlla indi moom yàlla nañ ko fi yàlla jëleel. konte nag feebar bi ah yal ko yàlla ak yonent ba daqal ah ñaan yàlla rek feebar yi mu dem. waaye nag balay loolu njëgu fruits ak légumes yi dina metti lool ci ñi nga xam ni ñoo koy jënd en gros di ko jaayaat. bu leen fàtte li ñuy wax les gestes barrières jëm ci wàllu xeexum coronavirus bi bu ci njëkk mooy ngeen di sol seen masque saa yu ngeen xamee ni yéen a ngi ci ay mbooloo wala ci yenn jotaay wala ci yenn service yi bu leen fàtte itam. moytu dendandoo bi loolu tamit jar na def ndax bàyyi distance waaye it li ci gën am solo raxas seeni loxo saa yu ngeen ko mënee ba mu set wecc bu ñu ko defee rek yàlla musalu ñu ci feebar bi di Covid 19. yeneen i xibaar ci Mandeng ci kanam lay doon ak Rose Cissé juróom-ñaari waxtu ak sëñ bi xaalis sekk ci wolof mbokk yi ñu yendu jàmm.